peccum tey maanaam tey dañoo def euh, benn panel woo anciens yi fi nekkoon pour ñu waxtaan ak jeunes waxtaan ak xale yi ñu waxtaan ci tolluwaay fecc tey moom la suñu directeur euh, Abdoulaye Koundou organisé ak euh, personnel bi chef de personnel ak Ousmane Dione muy secretaire général ñu def ko pour pour tey waxtaan ak xale yi quoi ci wàllum fecc alors bu ñu seetloo ñu gis ni euh, xëy na nit ñi ñu commencé yeewu ci njëriñal fecc ndax bu njëkk bu ñu nee fecc rek. Mhm. ñu jàppee ko lu ñàkk fayda. Mhm. loo xam ni pour mhm. fola. dëgg la mais euh, ci tënk. yow ren njëriñ mën indil. ñu gis ni lii fecc njëriñ na ko. jëm ci wàllu développement société. jëm ci wàllu parce que bu ñu xoolee yenn réew yi sax. fecc dafay jariñ bay jariñ ci tey bu nit ki amee lu ko naqari. day dem làqatu loo xam ne fecc pour génn naqaram boobu. dëgg yeneen yeneen xeetu njëriñ la ñu mën a indi nii. ci daf koy jëriñ ci biir société. mais comme li nga wax rek. ci réew boobu fii tam réew bii tam noonu la fa demee. tey jii nii amaana nit dina am lu ko naqari ci àddunaam wala am lu ko neexul wala xolam neexul dëgg waaye tey bu ñëwee gis kuy fecc rek kenn du seetaan fecc ba pare di gën a mer fecc maanaam dafa bokk ci dund. tey bu ma taxawoon nii ngeen may jël nii ma fecc di ngeen ree seen xool dina sedd ki koy seetaan xolam dina sedd déjà. ba pare fecc dafa doon loo xam ne comme lu ko yàgg wax kon tey lu ñuy xeex ba léegi nii mooy métier la comme yeneen métier yëpp lii firndeel na ko yéen a ngi ñëw kër goo xam ne fii patrimoine Sénégal la depuis cinq ba léegi nga war a xam ne mu ne fi am am am am am kii am ay fecckat muy bale am am TND théâtre am fii tamit ñoo xam ne musique la ñuy def musique traditionnelle muy ensemble lyrique traditionnel donc mu loolu mooy wane ni maanaam métier la te ñoom ku si ne am nga sa salaire yaa ngi fay say impôt ah di def euh, di di fay sa retraite di di di cotiser sa retraite lépp donc loolu métier la mais loolu la ko may nag métier dañ koy jàng fecc nag dañ koy jàng dafa am ABC moo lépp a yam man métier laa ko jàpp sam pap ci la ma amee. te ba mu ba mu may am mu tey bu ma demee ba jël palaasam bi mu jël directeur bi mu doonoon tey ma toog ci palaasam donc sant yàlla waaw. ana nan ngeen ci ndaje mi ana nan ngeen xalaat def pour euh, mën a réadapter danse ballet yi. Mhm. ak euh, danse moderne bi ba nga xam ne du disparaître. non xam nga tey disparaître sax du mën a nekk. tey dañuy wax nii rek mais gën ko feesal parce que tey boo ñëwee poser question bi ça veut dire que pour ñi ñi delluwaat seen xel ci danse traditionnelle ba pare man dama moderne ba pare dama traditionnel ndax tey ku ne xam na ni man fecc moderne laay kuy xool samay fecc sax da nga gis moderne bi déjà te nag am na ñu bëri xamuñu ne man fii def naa fi vingt ans vingt cinq ans vingt vingt deux ans fii Sorano te traditionnel laa fi jàng jàng ko fekk samay papa samay yaay ba yegg si fii donc mu ngi noonu quoi. waaw bis bi muy 29 euh, mai si àdduna bi yëpp dañuy jëm ci am pecc pecc dafay loo xam ne lii ñëpp a koy def tous les peuples foo mënti dem ñëppay fecc ñu jagleel ko bis bi tey foo dem ci àdduna ñi koy def senegal aussi moom it def ko comme ni mu ko daan defee at yëpp saa yu waxtu yu mosaan jot partout ci région yi ak Dakar fépp dañu koy célébrer danañ ko faral di def di fecc ci seen yi danañ koy faral aussi di def di toog di waxtaan ci li nga xam ne lii moo jëm ci si fecc mooy li nga xam ne lii moom la Sorano di def actuellement nii am benn panel boo xam ne bi dañ ko organisé woo ay kàngam yoo xam ne seen xel màcc na ci lu jëm ci am pecc moo xam peccam cosaan moo xam pecc moo xam ne mi peccam pecc mu bees la pecc moo xam ne ànd ak jamono donc ñuy waxtaan ci loolu di xool nan la peccum jamono mën a lu mën a indil peccum cosaan wala aussi pecc peccum cosaan lu mën a indil peccum jamono waaw avenir ba muy am mi ngi aaju rek ci mën-mëneefam euh, capacité am mën a adapté waaye adapté wu taxul sax mu soppi xar kanam waaye nan lay fexee sukkandiku ci li nga xam ne lii moom moo ko moom cosaan la te waruñu réer ñu fexe adapté ko ak li nga xam ne lii noonu la jamono di doxee parce que ku nekk da ngay dox sa euh, boo nekkee ci jamono da ngay dox ànd ak dafa ànd ak moom waxul ne dañuy fàtte feccum cosaan waaye tey jii li nga xam ne moom la ñuy wax mooy feccum tey ji nan lañ ci mën a sukkandikoo si cosaan pour développer feccum tey donc loolu am na solo te loolu bu ñu ko defee en même temps dimbale nañu feccum cosaan mu continuer di am parce que mën na am xale yi nga xam ne jël nañ fecc def ko métier du cosaan moo tax ñu ñu dugg ci loolu boobaa bu fekkente ne nag mën nañ koo adapté ba li fecc li fecc di doxee fépp ci àdduna mu mën faa dox waaye ñun ñu am suñu identité bopp identité bopp boo xam ne bi fu ñu feccee ñu ne bii bu Sénégal la mais loolu fa mu koy jëlee aussi si cosaan rek la ko mën a jëlee mm-hmm. donc loolu moo tax waxtaan wi am solo xool ñoom ñaar muy fecc moomu muy cosaan bi ak fecc tey ji nan lañ mën a dimbalantee ba ku nekk mën a développé wu mën a fexe ba exister ci siècle bu bees parce que maa ngi naan ñun euh, dañu dem ci xarnu bu bees ñun ñëpp yàlla daf ñu may ñu jógee ci xar jógee jógee ci vingt et unième siècle dem ci vingt et unième muy nga dépassé jéggi benn xarnu du ñëpp ñoo am lool parce que siècle cent la tey jii xale yi si juddu nii si at mi en 2021 ñi si ñi si ñi si juddu ah ku yàlla may mën nga jéggi dem deux at mi at di ñëw 2000 euh, ñi ngi 2021 donc boo ci tegee euh, cent ans. da ngay dem da ngay da ngay jéggi. dem dem ci beneen seet. Mm-hmm. kon xam nga loolu aussi du du ñëpp ñoo mën a am loolu. Mm-hmm. moo tax euh, ñun puisque dañuy jéggi di wiiri. Mm-hmm. jéggi ñaari ñaari siècle. tenir compte si siècle bu bees bi li nga xam ne lii moom la indi te ku nekk xam ne ne siècle bu bees bi dafa indi yeneen yu bees ay xar-xar yu xarala yu bees indi vitesse indi aussi question wu présence parce que du rek diffusion def sa spectacle nit ñi ñëw seetaan ko du loolu rek moo fi nekk euh, feebar bi fi mujj woon nañ ne mën nañu am yeneen façon yoo xam ni mën nañoo présenter ay spectacle te kenn du déplacé wu donc loolu aussi yokkute la mais dafa indi dafay indi aussi ay yeneen changement